keneen ki mi ngi tudd Moussa Fall moom ma nga woon ca Africa Foot Academy jugee na foofee club boobu nag mi ngi ci troisième division bu Sénégal waaye gone gi saison bi ñu génn dugal na quatorze but ak waa Africa Academy Foot muy Moussa Diallo kon ñaari gone yooyee xaatim nañu contrat ca Jaraaf officiellement muy Pape Ibrahima Ba ak Moussa Fall bu dee gone gii tudd almaami mëtaw faal moom sànq ci sunu xibaar yi njëkk ñoo ngi leen di wax na jóge na ca dig dem ca jaraaf waaye kat club bi ko moom di dig génn nañu amal ab communiqué nee nañu ñoom yëguñu tinuñu ci dem gi nga xam ne seen gone gii di almaami mëtaw faal dem na ko ca jaraaf kon nag contrat bi mu fa am valableul ndax club bi ko moom tudd Dakar Université Club ñu gën koo xam ci digg nee nañu yëguñu tinuñu ci dem ji nga xam ne seen gone gii di Almami Mateu Fall dem na ko ca jaraaf ci fàttali moom saison bi ñu génn ci Ligue bu Sénégal moo fa jël meilleur buteur muy almaami mëtaw faal waaye dem ji nga xam ne ñoo ngi ko doon wax naan dem na ca jaraaf loolee club bi ko moom di dug nee nañu ñu yëguñu tinuñu ñu jugee ci almaami mëtaw faal ak jafe-jafe yooyee ab transferam am waaye dinañ leen ko toppal jël doomu Nigeria bi tudd Victor Osimhen moom nag club bi ko moom di Napoli dàquñu jaay ko waaye li ñu xamal waa Paris mi ko bëgg moo di jox leen ñu quatre-vingt-dix millions d'euros plus Kang Hengli su ngeen amalee loolee noppi nañu ngir jox leen Victor Osimhen waaye foot mercato nee na waa Paris dañoo bañagum a jamono joojee quatre-vingt-dix millions plus Kang Hengli waa Paris nee ñu jamono ji mënuñu koo def ci Victor Osimhen ñu jugee ci Victor Osimhen ak bëgg-bëgg boobe waa Napoli am ci moom jël doomu France bi tudd Ryan Cherki moom nag ma nga ca Olympique bu Lyon jamono ji waa Borussia mun dañu koo bëgg te ñoo ngi baral jéego yi ngir xaatimal ko contrat noppi nañu ngir def ca quinze millions millions d'euros quinze millions d'euros yooyee nag du am bonus du am dara fan yii di ñëw nag mën naa am juboo ci lépp am ci diggante ñaari club yi muy Borussia mun ak Olympique bu Lyon ñu jugee ci Reen Sirki ak bëgg-bëgg boobee waa Borussia mun am ci moom waaye Dortmund googee duñu ko génn gum ñoom nag dañoo bëgg latéral bi tudd Yann Koto gone gi saison bi ñu génn ma nga woon ca Girona di doxal waaye kat waa mën sa Manchester City ñoo ko moom mun nag li ñu bëgg moo di jënd ko ci waa Manchester City jamono ji nag clause bi ko bàyyi ci City mi ngi toll ci quarante millions d'euros waaye loolee moom waa Borussia Dortmund noppi wu ñu ngir fay ko li ñu bëgg moo di waxtaan ak waa mën sa Manchester City def ca vingt millions d'euros wala lu mu baree bari vingt cinq millions d'euros jamono jii loole la waa Borussia mun bëgg moom mi di Yan Koto nag latéral bu mën li muy def la xibaar boobu Fabrizio Romano moo ko xamle ñu jugee ci yan Koto ak bëgg-bëgg boobee waa Borussia Dortmund am ci moom jël doomu France bi tudd Youssouf Fofana moom nag ma nga ca AS Monaco waaye jamono ji bëgg-bëgg bi mu am moo di dem ca AC Milan doxal RMC nee na jamono ji sax gone gi ci boppam juboo na ak waa club boobee ci contrat wu ñeenti at ngir bu ñu ko jëlee ca AC Milan ko foofee gone gi ak waa AC Milan nañu ci lépp waaye yemul ci AC Milan képp ndax waa Manchester United dañu koo bëgg waaye moom Youssouf Fofana bëgg-bëgg bi mu am moo di dem ci club boo xam ne day football Ligue des champions kon nag mën naa am mu dem ca AC doxal waaye kat fi RMC daanelee fi la foot mercato jëlee kaddu gi waa AC Villa xam nañu lu gone gi di jar ndax ñi ko moom di waa AS Monaco nee ñu bëgg nañu ci gone gi trente cinq millions d'euros kon club yi ko bëgg xam nañu prix bi ko bàyyi ca AS Monaco xibaar boobu foot mercato moo ko xamle. ñu jugee ci Youssouf Fofana ak club yooyee di ko bàyyi xel dem ca waa Aston Villa ñoom nag am nañu gan gan gi moo di Amadou Onana nekk doomu Belgique nekkoon ca Everton xaatim na contrat ca Aston Villa bu Unai Emery contrat wu juróomi at la xaatim foofee li ñu def ci gone gi nag ba xaatimal ko contrat mi ngi toll ci soixante millions d'euros club boobee di Aston Villa nag saison bii di ñëw dañuy football Ligue des champions moo tax ñoo ngi dolli seen dooley club boobee ci fàttali Amadou Onana mi bokk na ci milieu de terrain yi Barcelone doon bàyyi xel waaye ñàkk nañu ko ndax dem na ca Aston Villa ñu jugee ci Amadou Onana ak contrat bu bees dem ca waa Atlético de Madrid ñoom nag ginnaaw bi ñu ñàkkee Morata bëgg-bëgg bi ñu am moo di am attaque attaquant bu mën a dugal ki ñu bëgg nag du kenn ku dul doomu Ukraine bi tudd Dov bi saison bi ñu génn ma nga woon ca Girona jamono ji waa Atlético de Madrid ñoo ngi baral jéego yi maanaam ñoo ngi accéléré ngir xaatimal ko contrat moom mii nga xam ne saison bi ñu génn moo jël meilleur buteur ca Liga ba di Dov bi nekk doomu Ukraine xibaar boobu Matteo Moretto moo ko xamle ñu jugee ci doof bi ak bëgg-bëgg boobee waa Atlético de Madrid am ci moom dem ca waa Barcelone ñoom nag seen défenseur bi ñu naan Ronald Araujo opération réussir na maanaam opéré nañu ko ba noppi ñoo ngi leen doon wax ne dina ko amal ca réewu Finlande loole am na ginnaaw bi ñu ko opéré ba noppi nag dina toog quatre mois maanaam ñeenti weer yoo xam ne du dugg ci tere football kon nag doomu Sénégal bi ñu naan Mikayil Ngor fay nekk ca Barcelone ndoorte saison bi mën na am temps de jeu bu doy li ko waral moo di Kubarsi day dem ca Jeux olympiques ba kii di Ronald Araujo dañu ko opéré du mën a football ci ndoorte saison bi kon Mikayil Ngor fay bu ñu dooree saison bi mën naa am ay match yu bëri yu mu football ak waa Barcelone. ñu jóge ci Ronald Araujo te di ko ñaanal wér-gu-yaramam jëm kanam waaye club boobee duñu ko génn gum Barça bee am nañu défenseur bu bees tàq naam ca club boobee la nekkoon waaye Barcelone moomuñu ko woon officiellement nag jamono jii waa Barcelone ko moom kookee du kenn ku dul doomu Sénégal bii di Mamadou Mbacke Ibra gone gi Los Angeles ñoo ko moomoon abaloon ko waa Barcelone jamono ji nag officiellement waa Barcelone jënd nañu ko xaatimal ko contrat ba atum 2026 waaye tamit am na option bu ca nekk mu di lan bu ñu demee ba yegg ci atum 2026 waa Barcelone xam ne doxal na ak ñoom bu leen neexee ñu yokkal ko yeneen ñaari at mu doxal moom Mamadou Mbacke Ibra Fall ñu jugee ci Mamadou Mbacke Ibra Fall ak contrat bu bees dem ca waa Real de Madrid Marca yéene kaay nee na saison bii di ñëw lu niin du góolu ci Real ndax daf fay jóge li ko waral moo di kat jubawuñu ci kàddu li lu niin bëgg ak li waa Real bëgg du benn kon day jóge ci club boobee loolee la Marca yéene kaay xamle fi Marca daanelee fi la AS jëlee kàddu gi xamle ne jamono ji waa Real de Madrid dañoo merel lool Jorge Mendes Jorge Mendes nag mooy agent wu Andriy Lunin ndax jàpp nañu ne moo tax mu bëgg a jugee ca club boobee ndax moom mii di Jorge Mendes dafa xeeñ Real de Madrid ñaari jour ñaar ñooñee nag ka ca njëkk moo di li ñu yoro li ñu yoro doomu France la Real de Madrid da koo bëggoon lool waaye agent wam di Jorge Mendes dafa fexe ba mu dem ca mën Manchester United jamono ji officiellement moom li ñu yoro xaatim na contrat ca Manchester United. keneen ki mi ngi tudd Pau Lago gone gi nag football am na lool yaakaar ci moom ma nga woon ci Real de Madrid be maanaam Castilla équipe bu ndaw bi gone gi jógee na ca Sporting bu Lisbonne loolee nag tax na ñu mere lool ñu ne déetawaay